waa mën sise ñoo ko approché woon pour mu liggéey ak ñoom loolu moo tax ñu am réflexion donc vidéo boobu xaar leen ko dinaa ko jusque dama ko dugal sans son bi moo ëpp doole ba déggoo leen li may wax man ak euh, Zeyna donc dina dugg léegi nii ci kanam maintenant vidéo bi léegi kii moo ko moom c'est Ahmadou Bamba Dieng

far yàlla nag yàlla yàlla ay ay mbiram moo tax yàlla du nit euh, Alexis Sanchez bi xam nga yàggul ñëw moo gaañu ñu dugal Bamba Dieng ko foofu mun ñëw dugal dugal instant yii nii boo xoolee si réseaux sociaux yi supporter moom la ñuy partagé ne non mais quel mental loolu la ñu ko tuddee mais Bamba Dieng mii est-ce que nit la quoi quel mental moom déjà le matin yàggul ma ne avec le sourire Bamba Dieng moom ba tey moom dafa gëm ne ba tey dafa war a prouver ne entraîneur ne man la te xam boo leen gisee Bamba Dieng am surtout force boobu noonu. xam bu génnee si restaurant yu dem restaurant yu Marseille mbedd ak yooyu Marseille dëkk bu passionné la ñu xam ne ñoo passionné quoi par seen club ñooñu daanaka seen religion la daanaka waa Marseille tellement dañoo gëm seen club du coup mën nañ romb baam yi nekk gëmal booy reste on est avec toi on est derrière toi et le fait que ñu gis loolu noonu mooy wati commander mooy fii euh, waa Marseille fi ñu entraîné ñu jël Payet ak Bamba def si kër bàyyi fi yeneen joueurs ce n'est rien xam nga am nañ cofeel si Bamba quoi xam nañ ne mën na nekk un grand attaquant te Sénégal ak Marseille dañoo am lu leen boole lu bëri ak Sénégal ñu duñ euh, loolu moom ay mbiri la la quoi et tey moom dafa wane vraiment mental bi moo tax sànq Twitter laa nekk mais message boo gis ñu mais quel mental la ngay gis kii kii c'est comme si c'est un joueur de vingt huit ans te yàggul bi mu nekkee professionnel ak léegi yàggul bi mu fisee Coupe d'Afrique ñoom loolu moo leen impressionné moo a ñu ne suñu attaquant dëgg normalement waa la war doon ñoom dem nañ sax ba du Milik wax nañ Luis Suarez boobu wax nañ Mbakamba boo xoolee ñoom ku ñu gën a bëgg c'est c'est c'est c'est kii Bamba Dieng même même Payet daaw la nga woon gis ay discours yu kii mooy avenir Marseille mu ne ma kii bu ratee du ma ko du ma ko kii du ma ko du ma parce que mental bi mu yor mën na rate occasion bu rëy ba ne kii tey mu dee mu ñëwaat dem dugal te ay si ay match yu mag laa ay wax ma ay match kii comme daaw demi-finale xam nga match aller bi mu rate rate yu rëy nag mu ñëw dugal bii bu rëy ma looloo ma neex quoi côté individuel parfois mën na soof bañ a joxe bal mais côté mental psychologiquement parlant man j'aime quoi j'aime ce genre de joueur c'est que yooyu ñoo mën a duñu duñu faale pression quoi te mën nañu progresser bu baax a baax a baax parce que pression bu fekkee da nga ko solleeg sa bopp rek ngay am problème moo tax Sénégal dafa am pression fii nii Marseille dafa am pression et j'ai bien aimé franchement li mu comporté tey wan entraîneur bi na koy saay man ma li ngay def nii tiitalu ma jaaxalu ma am na équipe yu bëri ma soxla te boo ma indi si si euh, entraînement yi moo la man maay kan Bamba Dieng loolu la wane ba tax man dama affaire bi dafa ma neex dama ko lii ma kontaan si ma ne naa ko partage ak yéen mbokk yi li mu nekk vidéo bi ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV.